jërë ngeen jëf ngën saar ga ca sàkkal ga ca Louga accident bu miti ba fa amoon ña ca gën a miti l'observateur xëy na seeti leen ubbil yéenekaay bi village yi di Ndangur Fall Ngiig Fall Càmbeen ak Caare journal bi nee nañu deuil communautaire la ñuy dund jamono ji Ndangur Fall rek suul na juróom-ñeenti doomam yoo xam ne ci accident bu sàkkal bi ci la ñàkkee seen bakkan li indi woon accident bi sur soi mi ngi ñuy wax fa enquête ba toll ki moom watam njaganjaay bi ak ki moom camion bi yéenekaay bi nee nañu bi leen dégloo bu nuppi dañ leen a bàyyi ñu dellu seeni kër ndax muy a interrogé ñaari chef de village yi li ñu leen wax mooy ñoom xamuñu kan moom mbaam mi borom mbaama xam mbaamam Le Quotidien nee nañu ñool ñool gi ci secteur transport bi taxul benn yoon jëwriñ gi ñu dénk transport ci réew mi di Mansour Faye yox yoxi démb ba muy jën taskatu xabaar yi wax na ne état bi fasuta yéene dellu gannaaw benn yoon ci mesure yu mu jël ngir wàññi accident yi nee nañu tari sóoratul muñ te wanaasu ko te xam ne moom Mansour Faye fisc mi ngi ñuy wax ne moom Mansour Faye fi mu taxaw fa la taxaw ba léegi buusewul lu toll ne tar fatalay ni Sud ne mi ngi dànkaafu transporteur yi bëgg a tàmbali ab yoon kuy dem ci grève da ngay yëglu def ab préavis mu ne transporteur bu la tegaat ci yoon réew mi quotidien mi ñu wax ci xëtamu ne ak ngi ñuy xamal ne ministre transport di Mansour Faye xamle na ne dinañu dugal ak woyofal di allègement ci mesures yi ñu fi jëloon jël kàddu gi di wax ne li état bi daan bàkko mu di force restera à la loi loolee boyoboo ñu soppi kon ndax bokkut ak li ñu gis léegi léegi kay li ñu war a wax moo di faiblesse restera à la loi li tax yéenekaay bi nañu moo di dañoo seetlu ne mesures yi état bi jël bu ca amee rek mu dellu ca ginnaaw ginnaaw loolu nañu wax ci livre bu Cheikh Yérim Seck bi génnagul te tàmbale yëngal réew mi Macky Sall face à l'histoire Vox Populi nee nañu noonee la livre ba tuddee waaye bari na ay bomb yu mu ca kalaatel wax na ci livre ba ba wax ba ñu bettee Ousmane Sonko ci corniche Ndakaaru bi ak benn xaleb gambien bu jigéen ñu doon def yëfi saay-saay Cheikh Yérim Seck weer na ci livre ba premier ministre ba mu ne wesar wax na ci ay réseau yi mu am wax na ci manœuvre yi muy def jàppale gi ko Karim Wade jàppale ak ambition yi mu am moom premier ministre ki ñu naan capitaine Touré Vox Populi nee nañu moom nee na ca yoon la jëm ak Cheikh Yérim Seck ndax Cheikh Yérim da ko tudd ca livre ba te lam ko ca waxal du dëgg lii dëgg tey dëgg La Tribune nee nañu moo di Cheikh Yérim Seck weer na Ousmane Sonko ak Macky Sall ca livre ba ñu bettee njiital parti Pastef fii ci oto ak benn Gambien ci corniche Dakar bi ci anam wu doy waar ba xibaar ba doxee ba tàbbi ci noppi Macky Sall ak la ca Macky Sall wax mu di teg leen ko ci suuf bu leen jël vie privée jàmbur di ko politiquer loolee lépp tribune nee nañu Cheikh Yérim Seck bind na ko ca livre ba kay bi di Les Échos li mu xëy bind moo di la xewoon démb ci guddi ca Kër Massar yëral xët mu njëkk journal bi juróom-ñetti gangster di ay wëyu yu kàggalewoo ñoo duggoon ca Grand Médine ga ca Kër Massar ba def fa jëf ju ñaw benn waay bu ñu naan mbar ñu gën koo xam ci mbër dib gardien bu newoon ca koñ ba gaañi dañ koo fetal mu faatu dafa am benn boutique fa bëggoon a song sottiwul ñu bàyyi ko fa jawale ci benn ab kenkaayiri bi gendarme yi yegsee Les Échos nee nañu ñoom wëyu yi dañoo taxaw jàmmaarloo ak ñoom di fetalante ak gendarme yi l'observateur bind ne li xew démb ca Kër Massar ci diggante genn yi ak cambrioleurs yi dafa meloon ne Far West ndax fetalante bu miti